léegi yow gisoo ni waa ji fan yii nii mi ngi régulariser mi ngi ah. ni waa ji léegi mi ngi teg affaire yi ci yoon comme ni nga koy waxee. moom bu tegoon affaire yi yoon du fi sax nekk naan day tourné yi wala buy tourné sax xëy na du pasar pasaree suñu xaalis nii di jël ay booy di leen fay ay vingt mille yenn booyee ñu fay leen ay trente mille vingt cinq mille quarante mille booyee ñëw siisu ñëw di yàq ay bus xam mm. chaque jour fitna di gën a am nguur buy jeex lii lii mooy dëgg dëgg dëgg nguur buy jeex nguur buy jeex rek mooy lii. kon jàpp nga ni moom nguuram jeexal na c'est fini. comme ni mu ko waxee woon di gaaral Ablaye Wade rek ne il faut savoir. partir à non il faut non non comme ni mu ko waxee woon Ablaye Wade ne il faut il faut savoir que quand c'est fini c'est fini waaw genre genre wax yooyu quoi waaw. loolu la quoi président Macky Sall quand c'est fini c'est fini bu jeexee jeex na il faut savoir que c'est fini. voilà xam nga lu ma la. Mhm. la demee. bul forcer bul sax jéem a forcer. maa ngi gis benn vidéo bu mu doon wax di xam nga naan ay lool dootul amaat. mais avant muy wax loolu mi ngi naan pourtant daara yi ak xaw ma looloo doon seen njëriñ parce que naan non lii jom nga ko def xam nga góor du def lii affaire yooyu mais la moo tax moom li muy wax gëmu ko moom la moo tax moom mënul xool ni moom ne maanaam góor man jomm naa maanaam sama askan yëpp weddi nañ ma sama askan kenn bëggatu ma waaw. xam nga la moo tax moom mënul am jomm jomm am auteur ñëw ne kat sénégalais yi jékki saa lekk retraité François Hollande defoon na ko. ana mu tey xëy na faa yi mu defoon yooyu yooyu yëpp français yi fàtte nañ ko. Mhm. est-ce que mhm. loolu xëy na bu ko defoon sax laa nii dina ko may chance bu bëri. waaw si maanaam fu nga xam ni sénégalais yi fa nañ nar a jëm ak moom. d'accord xam nga da nga am auteur nga am gore nga am jomm jomm boo dee gor boog bu dee deretu gor mi ñu daw sa siditu yaram yi xam nga. Mhm. nga jég saa yi xam ni sa askan bëggatu la quoi nga xool nooy bàyyi mu sedd. d'accord waaw di wax ni nax mhm. pexe noonu bu antolet yàlla la neex te chaque jour ñun saawaay xola ñun duñ ay fookat duñ ay caaxaankat ay soldaar soldaaru Mawlana Cheikh Ibrahim Bañas nañ ay soldaaru Baye Cheikh Mamour Insa Ruhullahi mhm. ñun doxuñu si ay caaxaan li jënt yuñ ko taluñu ko mhm. saawaay dañuy jàpp di julli di wérdi waaw di ko teg si yoon ba pare nax injustice bopp bu ñu am bu ñu gis si réew mi ay porteur de voix nañ bu ñeexee dénoncé ko du dëgg te suñu wareef la ah. insistant boo ko tegee suñu kaw saawaay day gën a neex rek pour ñu gën ko dénoncer du dëgg. Mhm. voilà te fii lañ juddoo màggee fi yaroo fi mënoo leen ñu fi jaay lu ñu safal lu ñu neex. te mënuñu regal fu ne nañu dugg ci côté politique yéen a ngi dénoncer injustice yi mais gis nañ tamit jamono jii nii accident yi bari na. nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan bari na ndax yéen yéen a ngi dénoncer injustice boobu ndaxte boobu même bu ci côté politicien yi gis nañ chauffeur Mm-hmm. kuy dawal di yor sa oto a ah, asafurla kuy kuy dawal yor sa oto yor sa téléphone xam nga mm-hmm. loolu la gars xel mënul jàpp ñaar mm-hmm. taximaan yi tamit taximaan lu leen neex na ñuy def si tali bi dañuy jég saa ay gis client rek mais gëmal yàlla li nga war a coob moom ngay coob lu nga warul a coob mënoo ko coob asamax ni dañuy gis client rek taxaw duñ sax lijjanti seen ginnaaw loolu rek day indi ay accident yi dul jeex ak yeen ak yeen réewande bi si tali gis gaan ñoo xam ne dañuy mandi tàqali ko seen sago di dawal yooyu noonu yëpp xëy na loolu beneen débat la mais dama ni la